نازل ورافق الجرباح يا من كفى مدى الغرور والنبام ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مسلما على مداد الغلام براني الباقي من الغياب وكان لي بعبد الغياب سلمني الرحمن في دنيا من أقدار عاقلا وحبا قدم ملكني الرحمن والرحيم دنيا أخرى كلما أقام بي سبيل الله للهداة زاق مدين رحمة المهداة لي يقاد له علما لم يرى من غيره ومن سواه لم يرى هي يقاد علم من تقدم ومن داخر وتبدل خدم هادنا الجميع دون شك وقاد لي كفا أذال شك أراني يا رحمن سر الدنيا يا باذع الخلق دون سنيا لعن لي القلاب والأبدان سالمني الديدان وسودان رجوت عن غير رضا الرحمن وقد كفاني كدر الأسمان إباء من ليس يموت سرمدا ليتوجه بمدي أحمدا محمد خير البرايا صلى عليه بتديم باق جلا maa ngi ñaan bu baax ñaanal bu baax a baax njabootug sëñ Modou gi ñoom ñëpp ci lañ bokk diggante waa kër sëñ Abdou Khadir di sa sëñ mi xabaan ñëw na ak ku ñuy wax sëñ Saliou waa kër sëñ Abdou Rahman ñëw nañ moom itam sëñ ji ñëw nañ waa kër sëñ Abibou ñëw nañ sëñ Abdou na ak sëñ Modou Mbacke ak ak ak rakam ñoom da ñoom ñoo ñëpp nag kenn ku ci nekk nag sa ñaq dem na ci liggéey ñëw nañ ci daal ñoom ñëpp la jàmbaar la lool waaw jéego yi ma jéego ba agsi ci ci liggéey bii ci jéego yi mu jéego ba agsi ci liggéey bii neen am na ci mbégte bu rëy amati na ko ci mbégte amati yi cant gu rëy rëy rëy nee na mu amati yi cant gu rëy rëy rëy ndax taxawaay bi xam nañ ko ndax taxawaay bi nee na xam na ko turu sëñ Mandoumbe tur bi képp bu fu ma ko déggee rek mu doy mi ab soññ ci man nee na turu sëñ Mandoumbe su mu dégg turu sëñ Mandoumbe rek mu doy ko ab soññ ci moom bopp ci taxawaay bii taxawaay bii kon nag lii lu sori ci man la nee na kon lii lu sori ci moom la waa kat Cheikh Mandoumbe teew fi teew fi liggéey liggéey bu toll nii. liggéey liggéey bu toll nii. bu fekkonte ne àndutu woon ak dara itam. su fekkonte ne àndutu nag dara itam ci muy at yi yéeg yi ni kon mu doyoon sëkk. kon mu doyoon sëkk. rawatina boole ci liggéey bi. rawatina boole mu ànd ak liggéey bi. nga xam ne ci suñu liggéeyu bopp suñu liggéeyu liggéeyu sëñ bi bu rëy bee ñu semb ca jëm. nga xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa bu rëy bee mu semb te li ngeen ci boole ci la ci loolee la jëm. loolu nag noo ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax. nee na kon nag mi ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax. di gën a yeesal sunu jaayante. nee na muy gën a yeesal ak jaayanteem. di leen ko seereel. di leen ko seereel. gën a feddali sama laxasaay. gën a feddali ak laxasaayam. fas yéene ko ànd ak yéen. fas yéene ànd ak yéen. loolu ab soññ la bu rëy rëy ci man. nee na loolu ab soññ la bu rëy rëy ci man seen taxawaayu bopp bi. seen taxawaayu bopp bi. mbégte mi mu ci am. nee na mbégte mi mu ci am. amul fu mu yem. amul fu mu yem. cant gu rëy gi ma ci am. cant gu yi gi ma ci am. amul fu mu yem. amul fu mu yem. xanaa fa kaw kanam sëriñ borom liggéey bi rek. xanaa fa kanam borom liggéey bi rek. ñaan rek bu baax. ci bi bu baax ci barke sëriñ bi. taxawaay bu rëy bu rafet bii. taxawaay bu rëy bu rafet bii. xam ne lépp liggéey sëriñ bi la. xam ne lépp liggéey sëriñ bi la. liggéey boo xam ne taxawaay boo xam ne ñu ngi ko sof ca taxawaay bu mag boobee nga xam ne moom sëñ mën nu taxawoon taxawaay bu réy bii nga xam ne da ngeen koo sof ci taxawaay bu mag boobee nga xam ne moom la Cheikh Mandoumbe taxawoon muy taxawaay boo xam ne eh, xel dóol ci mënu koo dab nee na muy taxawaay boo xam ne xel dóol mën koo dab waaye lañ ca mën a xam nag xam nañ ko waaye lan ca mën a xam nag xam nañ ko ci diggam ak sëriñ bi. ci diggam ak sëriñ mu taxee woon. na mu taxee woon moom Cheikh Ahmadou Mbaye. bu jëkk gu mujj. ci bu njëkk ak ci bu mujj. xam na lépp. nee na xam na lépp. dama ko doon dégg rek. ndax na su fekkoon da ko doon dégg rek. muy taxawaay bii. muy taxawaay bii. kon mu doy ma sëkk. nee na mu doy ma sëkk. waxuma laa nag. nee na waxuma laa nag. tawfeex ji ma ci am. tawfeex ji mu ci am. bokk ak yéen bokk ak yéen. bokk yéen liggéey bi. ànd koog yéen. ànd yéen. bokk teew fii ci njaboot ànd ak yéen ci teewaayu njabootu sëñ mboolem taalibe yi. ngeen mu bokk teew ak yéen yéen ñëpp mboolem njabootu Cheikh Mandoumbe ak taalibe yi Cheikh Mandoumbe yi mu bokk ànd ak yéen teew ci jotaay bii biir liggéey bii. loolu sama xel mësta xalaat loolu mën naa am ci man. nee na xelam xalaat ne tawfeex ju rëy jooju mën naa am ci moom. jàppoon naa lu ma jomb la. mais jàpp na lu ko jomb la waaye dara jombul. dara jombul noonu rek la demee. nee na kat noonu rek la demee. teewlu gii ma teewlu. nee na teewlu gii mu teewlu. sëriñ bi xam na ko. nee na sëriñ bi xam na ko. sëñ Manoumbe xam na ko. sëñ Manoumbe xam na ko. ndax xam na ne lépp moo lépp lépp lépp moo ma. ndax sëñ Manoumbe xam na ne lépp moo ma. kon nag ñoo ngi ci gën a fedd suñu su su gën a gën a gën a yees suñu jaayante rek gën a fedd suñu suñu laxasaay rek. nee na comme da ciy gën a fedd ak jaayanteem rek gën a fedd laxasaayam rek. parce que ko gën a ànd ak yéen rek. parce que yéen a gën a ànd ak yéen rek. sama xol sedd na guy. nee na xolam sedd na guy.